sa teewaay waaw sama teewaay fii tey mooy euh, jàppale koo xamante ne suñu xarit la suñu frère mhm. waaye tamit protester emprisonnement bi la fekk ñu jàpp. parce que tey ñëpp xam nañ ne kenn amul intérêt pour affaiblir ñoo xam ne ñoo yor suñu kaaraange. muy force de sécurité yi. par responsabilité boobu nag dafa am ñu ko moom. responsabilité boobu citoyen la waaye tamit ñoo xamante ne ñoo nekk ci loolu forces de sécurité yooyu ñooñu tamit am nañu responsabilité moom loolu la Guy Marius Sagna dénoncé loolu la wax esprit waxam yëpp loolu la donc gisuma luy war a mën a tax ñu koy indi fi donc jàpp nañ ne ku mel ni moom dañ ko war a protéger jàpp nañ ne ku mel ni moom dañ ko war a soutenir jàpp nañ ne ku mel ni moom façon bu muy defee activisme. dañ ko war a encourager ba mu am ñeneen ñu mel ni Guy Marius Sagna parce que su dee ku mel ni moom nga xamante ne day wane kanamam ñëpp di ko gis day jël ay responsabilités am day jox ay wax loo xamante ne moom la xalaat si réew mi ñëpp di si di ko teg bët. su dee ñoo xamante ne dañuy feeñal seen bopp dañ leen di bun xatal ça veut que ñu ngi nekk di encourager ñoo xamante ne dañuy jël euh, seeni wax nëbb ko si ginnaaw ay caméra di di wane lâcheté boo xamante ne dañuy jëm di def di attaquer ay nit yoo xam ne defuñu leen dara walla di attaquer ñoo xamante ne seen yoon nekkul si ñoom lu ñuy def donc façon activisme boobu. la ñu nar encouragé su dee ku jug taxaw wax lu mu gëm dañ koy jàpp dugal ko ci kaso donc jàpp naa ne ku mel ni moom au contraire dañu war a xeex pour mu am ñeneen ñu mel ni moom ñoo xamante ne dañuy taxawal Sénégal ci anam bii nga xam ne anam dara gidewu ko lu dul jàppale population yi taxawu population yi euh, combattre loo xamante ne c'est des question de principe donc am nañ yaakaar am nañ yaakaar ne plaidoirie yu avocat yi def incha allah dinañ ko bàyyi si nu mu gën a gaawee. parce que nag euh, yoo place am du prison place am nekk si wetu askan bi la ginnaaw ba ñu waroon nekk si askan bi daal di bàyyi seen rôle di trafiquer ay visa di def leneen ak leneen moom tey dañ ko war a permettre mu am possibilité continuer di nekk si kanamu askan bi parce que Sénégal kenn mënatu leen noot kenn mënatu leen noppiloo si quoi que soit démocratie il faut ñu xam ne ne. c'est irréversible les gens vont donner leur point de vue donc loolu jàpp nañu ne euh, lu lu war la ci Sénégal loolu moo waroon suñu teewaay tey ñu koy jàppale bu baax a baax ci xeex bu muy xeex. ñu ngi lay jaajëfal. c'est bon. c'est bon oui. Alors, M. Bokoum, quest pour euh, soutenir euh, un frère, Nous sommes venus également protester contre sa détention. Il est clair, il est évident qu'aucun Sénégalais n'a intérêt à affaiblir les forces de sécurité. C'est une évidence. Mais cette responsabilité est partagée. Elle est partagée par les citoyens sénégalais avec aussi les membres de ces fonds. Et c'est ça l'esprit de, la déclaration de Guy Marissal. C'est ça l'esprit de, sa publication sur Des personnes comme Guy Marissagnan doivent être protégées, doivent être défendues. Parce qu'il fait de l'activisme sain. Guy Marissagnan parle à visage découvert. Guy Marissagnan défend les opprimés. Guy Marius Sagna défend le peuple sénégalais c'est extrêmement important de le préciser bien entendu si on affaiblit ce type d'activisme ça veut dire tout simplement qu'on risque d'encourager l'autre type d'activisme de personnes qui se cachent derrière des caméras qui insultent de citoyens qui apprennent à la jeunesse la lâcheté qui apprennent à la jeunesse le mensonge, nous ne voulons pas de ce type d'activisme. Nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de Guy Marius Sagna. Parce que la liberté d'expression, est fondamentale. Et aucun État ne peut empêcher aux Sénégalais de s'exprimer. Aucun régime ne peut empêcher aux Sénégalais de s'exprimer. Donc nous sommes en phase avec les luttes que mène Guy Son désir est que justement qu'il y ait justice, qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. Et ce sont des faits que nous constatons tous. Donc nous considérons aujourd'hui encore plus que jamais que c'est un combattant au service des populations. Donc il doit être libéré. Et nous avons confiance qu'il va être libéré. Nous avons entendu les plaidoiries de ses avocats et nous espérons que le 14 août, il sera libéré.